ça. waa ci xoolal ma luy numéro. xoolal xoolal xoolal sa kii. xoolal xoolal. do mais di nga mun a jox ko technicien léegi mu zoomé ko. xoolal xoolal dama si beneen après da nga si beneen caméra bi. Mhm. xoolal xoolal ak seen plastique. <laughs> ana caab bi. caabi mu ñëwoon sa scooter. ma fekk ki taaloon na xam nga. fekk taaloon na. pourtant fii leer na de xoolal oh xoolal. Moustapha Touré tuddee la sama mukaay. yow ki kanam gi dinañ ko. oh da koo pomp da koo pomp. xoolal xoolal xoolal. xoolal xoolal. dafa naroon a gor jaasi bi ah xool ko. gis nga dem dañ koy gis keneen da ngay gis. kii mën nañ ko gis. kii moom mën nañ ko gis. allo allo. waaw. ça va bien. puso <laughs> ñu masque la sax. mais di nga mun a jox ko technicien léegi mu zoomé ko dama si beneen après da dem si beneen caméra bi. Mhm. xool leen ak seen plastique. <laughs> ana caab bi caab bi mu ngi woon sa scooter. non fekk ki taaloon na xam nga. fekk taaloon na. pourtant fii leer na de xoolal xoolal. Moustapha Touré Touré la mu kaay. yow ki kanam gi dañ ko. oh da koo pomp da koo pomp. xoolal xoolal xoolal. xoolal xoolal. dafa naroon ak ja góor jaasi bi ah xool ko. gis nga xam ne dañ koy gis keene da gis. kii mën nañ koo gis. kii moom mën nañ koo gis. allo allo. Sama bien.